بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله a ngi ànd ak oustaz Saalix Ñaŋ bu dabaax Malick ci yor yoru aljuma ñuy baaxe soxna yi nga xam ni dañu toll ci sëy te gisaguñu kenn ni ñaan gi ku koy saxoo insha allahu yàlla dana la may jëkkër ju baax te moo di foo sëlmale sa julli farata nga def fatiha ak salaatu ala nabi astaghfirullah nga def ko soixante-dix après nga wax lii rabbi laa tazarnii fardan wa anta xayrul waarisiina nga def ko cent seize fois rabbi laa tazarnii fardan wa anta xayrul waarisiina cent seize fois ngeen àndoon ak seen mbokk Oustaz Saliou Niang bu Dabakh Malick daañu ñaan ci lépp lu baax numéro baa ngi noonu ku soxla mën nga woote wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa